jamono waaw mais aussi ñun aussi Sénégalais il faut pas aussi que ñun aussi ñuy euh, ñuy suñu bopp. Mm-hmm. xam nga li El def El Hadj bon pas très mais Camerounais yi du Antoine Bell depuis vingt ans amul lu ñu yàqul. mais El Hadj mu ndaw la dóor rek. <laughs> gars yi bëgg na et puis nag le football aussi c'est dañuy dañuy dañuy dañuy tooñante dañ koy def lépp et puis dafay gën neexal affaire yi rek. Mm-hmm. bon maintenant nag euh, même boo xoolee aujourd'hui sur réseaux sociaux yi euh, comportement ivoirien comportement camerounais et tout ça comportement sénégalais yi dañuy tooñante. Mm-hmm. tey yow boo amee sa mbër man ma am sama mbër ñu bokk ci kër gi bokk ndey ak bàyyi sa mbër bu daanee sa mbër euh, dafa dama lay kaañoo pendant. des des mois et des mois bon c'était pas méchant et je pense que aujourd'hui peut-être que lenn lenn lenn lañ ci mën a wax mooy. war woon wax sur la fédération camerounaise ah. parce que politique wu jàmbur euh, seen politique sportive ñoom la concerné ñoom ñoom ñoom ko wane mm-hmm. et peut que Eto'o c'est le président de cette fédération parce que nangu un di critiquer sama président fédération mm-hmm. ni mu tenir ni mu tenir fédération bi quoi ah. peut-être loolu mu ci am excès moom mais hélas hélas dina ci génn ñooñu ay nitam la ñu